kon Tata yow la ñuy jox kàddu gi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin yal nañu yàlla may ñu yeggalee sunu sago y'a plus de match affaire bi jeex na jeexal ngeen ko match amatul match amatul terminé dama ni Ousmane Sonko nanguwul ku mës wax Pastef nanguwul ku mës wax coalition le peuple du Sénégal lay waxal lu mu wax ne lu ñu def te boolewuñ ci peuple bi du am Ousmane peuple bi moo lay njukkal peuple bi nga gëm peuple bee tax nga sacrifié wu bee tax nga daj li ngay daj peuple bi moo lay fay peuple bee la gëm yow peuple bi moo la gëm peuple Sénégal kenn dootu leen peuple Sénégal kenn dootu ko nax peuple bi dem ba xam ne yow yaa leen ko jaral ñu jox la président tey majorité nga soxla dinañ la jox majorité fii allié amu fi ñépp Pastef lañu allié yi nga xam ne ñoo tënku ci jamaay président dafay yokku li nekk ci liste d'attente bi xaw ma nañu toll ñépp a ñëw bëgg a ànd yow ñépp a ñëw bëgg laa soutenir ñëpp la gëm ndax Sénégal la gëm Sénégal la gëm te yaa gëm Sénégal waa Sénégal dinañu ànd ak yow nga jox ñu nag liste boo xam ni am nañ ci fierté kan moo nekk ci sa liste Mbène Faye jigéen ñaa ngi gis seen bopp ci moom Ami Dia jigéen ñaa ngi gis seen bopp ci moom doyen Alla Kane jigéen ñaa ngi gis seen bopp ci moom waaw ana borom Ndakaaru

dañ ma ni deer amul politique waaye bu ma ñëwee ñu laaj ma Ousmane Sonko bu ma demee Nord ñu ne ma ana Ousmane bu ma demee Sud ñu ne ma ana Ousmane bu ma ñëwee Ossan ñu ne ma ana Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane. merci merci beaucoup Tata Aïda Mbodj léegi nag dañuy